coronavirus oblige moo waral tey ñu seet si ki nga xam ne moom mooy professeur Sow mu nar a waxtaan ak yéen ci lépp loo xam ne rek si méthode de transmission bu gën a gaaw ci virus bi ci am virus bi war a transmettre virus bi keneen ki nga xam ne amu ko ban mooy méthode de contamination bi gën a gaaw ak itam li nga xam ne moom mooy cadavre yi nga xam ni nit ki bu ko virus bi reyee euh, parce que liñ liñ ci wax bëri na nee risque de contamination bi foofu dafa bëri euh, ndax ki nga xam ni moom dee na ndax virus bi dañ koy mën a suul noonu famille yam duñ ko mën a gis parce que dañuy bañ contamination lépp loo xam ne rek jëm na ci méthode de contamination bi professeur Sow dinañu ci indil ay leeral professeur ñu ngi lay nuyu. waaw jërëjëf maa ngi nuyu seen euh, auditeurs yi ak téléspectateurs yi man la Ahmed Iyane Sow lañ may woowee euh, médecin la ma def spécialisation bactériologie ak virologie yàlla def na tey euh, fi ñu toll maa koy jàngale ak sama yeneen naataango fële université Cheikh Anta Diop euh, je suis le chef de service du laboratoire de bactériologie virologie médicale. Mm-hmm. d'accord professeur Fanny yi coow lu bëri na te coow lu lenn la vaccin bi war nañ def vaccin test bi ñu bëgg ko def Afrique. Mm-hmm. waaw bu ñu fàttali mooy vaccin lu muy jëriñ mooy tàggat euh, yaram mi ba nga xam ne bu feebar bi ñëwee dina ko mën dékku mm-hmm. yàlla dafa def ci organisme nit ak sax bu bayima ma mu am ay soldats yu fa ne <clears throat> soldats yooyu ay cellules lañu lépp lu dugg ci biir yaram nit te bokk fa soldats yooyu dañ lay song nemmeeku ko bu fekkee ni bokkuloo fa ñu ñu xeex ak yow buñ la gañee feebar du am boo gañee bu fekkee doom jàngoro la doom jàngoro bi gañee euh, ci la feebar di judd Euh, léegi nag vaccin yi biñ ko euh, nemmeekoo mooy dañuy jël doomu jàngoro boo xam ne dañ ko traité ba du mën joxe feebar waaye dina am ci doomu jàngoro bi loo xam ni euh, antigène lañ ngay tudde ba tax soldaar yooyu mën ko xàmmee donc boo jëlee doomu jàngoro bu ñu traité mënul joxe feebar nga dugal ci yaram nit yaram bi day réagir comme bu fekkoon doomu jàngoro la mais nag garder en mémoire euh, doomu jàngoro boobu ba bu ñëwee nekk doomu jàngoro bu mën joxe feebar réaction bi day gaaw ba pare réaction bu forte lay doon euh, pour ñu mën xeex ak moom. léegi vaccin bi ñuy wax moo tudd BCG <clears throat> BCG euh, ñàkk la boo xam ni xale bu juddu war nañ ko ko defal loolu obligation la ci suñu réew yi bon ci Europe nag ñoom yëkkati woon nañu obligation boobu. mais vaccin la boo xam ni day protéger nit ñi ci tuberculose mooy feebaru saqat mais ñiy seetlu wala ñiy gëstu dañu seetlu woon ni dina protéger tuberculose waaye dina protéger itam yeneen feebar yoo xam ne feebaru dënn la feebaru xëtër muy maladie respiratoire te comme dañu gis ni coronavirus bi <coughs> maladie respiratoire lay joxe am ñu proposé ni est-ce que duñu seet ndax itam Euh, BCG du protéger contre euh, coronavirus C'est ce jur euh, idée bi léegi nag ñu bëgg ko def ay test ñu nañ parce que science nous lay doxee dañu poser ay hypothèse jéem ko vérifier après nous avons ay résultats applicables. donc ci loolu la ay réew d'accord pour def ko fële ci Europe Hollande Australie aussi jël nañu me semble que Espagne waxoon nañ ñu def ak France mais fe yu mel noonu essai pour nga def ko plus nit ñi gën bare plus muy am muy am force euh, plus réew yi gën a bare aussi plus muy gën am force am nag ñu propose ni faut pas ñu yem Europe nañ seet aussi Afrique surtout que dafa am ñu xalaat ni Afrique lu tax bareegu fi feebar bi xëy na loolu BCG bi nga xam ne presque ñëpp def nañ ko xëy na moo protégé waa Afrique ba ba feebar bi bareegu fi loolu aussi ay hypothèse la rek yoo xam ne lu ñu war vérifier léegi nag problème bi mooy dafa am ñeneen ñu si dugal seen wax ba wax si wax yoo xam ni nit ñi mën ñu ko rafetlu looloo jur réaction bi bi tax euh, Afrique ak africain yi taxaw bon génné nañ ci aussi ay wax euh, yo xam ni. nañ ko njëkkee Afrique bi surtout mo déranger li nga xam moy africain yi parce que population bi là-bas elle est nombreuse nañ ko njëkkee Afrique comme ni ñu defoon bi ñuy euh, defoon ci Sida ak yenen ak yenen loolu mo déranger africain yi. waaw wax di man déglu naa ko ki ko wax man gëw ni sax euh, am na tout dara ci spécialité ci affaire boobu daf mel le médecin généraliste la boo xam ni dañ ko woo ci télé plateau télé muy wax ba wax loolu. mais il faut ñu xam ni euh, essais yu mel noonu pour ñu def ko dafa am yoon wu mu war jaar bi si giitu moo di ni kenn mënul def essai ci benn réew te autorité yeneen ci réew ma joxewuñu seen autorisation te ñoom it autorisation bi pour ñu joxe ko dañ koy jaarale ci benn comité bu ñu tuddee comité d'éthique comité d'éthique képp kuy def ñun ñi nekk fii ci réew mi ak ñu jóge bitim réew normalement ku fi ñëw commité comité d'éthique war nga ko jox dans le détail sa protocole lan nga bëgg def ci ñan nga ko bëgg def moom it mu xay mu xayma ko xool ndax li nga bëgg def mën nañ ko nangu wala mën ñu ko nangu est-ce que du am jeexital du du lor ñu ngi koy defal wala déet avant jox la autorisation. d'accord comité d'éthique bi ñan ñoo ko composé. de d'éthique man bi ma si xam surtout mooy bi ne ministère de la santé ñoom ay ñu jàng affaire recherche la ak science. te am nañu possibilité aussi seet domaine bu ne ñekk gën jàng ci réew mi ñu ñu jox leen dossier bi ni leen xoolal leen ba xam lii mën nañ ko nangu wala déet mais c'est sous l'autorité du ministre de la santé. d'accord mais fi mu nekk nii Afrique yëgoo leen kenn koo xam ne rek d'accord na pour ñu def test yi ci population. waaw am na yi ñu gis rek ci presse bi. Euh, gisoon naa ni RDC am na ku fa déclaré woon kooku xaw ma sax lan la xaw ma ndax gëwma euh, ni ministre bi la mais ku déclaré woon ni dinañ ko nangu après mu defaat beneen audio wala vidéo euh, ni en tout cas du duñ ko nangu n'importe comment donc xam naa wax ji jóg nii tax na ba ñu bare dinañu teyaat tuuti ci mbir mi beneen lu ma si dolli mooy <clears throat> képp ku ñu dugal ci étude yooyu day fekk yow nangul sa bopp volontariat la war doon dëkk buñ ci dugal même bu ñu duggee ba ci dëkk ba mënuñu ñëw rek ni dañu ramasse nit ñi defal leen ay test comme ça te neexu leen non ñi ñuy defal test ngay bëgg a wax non ñi ñuy defal essai yi essai ñi ñu koy defal nit ñi ñoom ñooy nangu ñooy nangu signé ni ñoom expliquer nañ leen parce que dañ leen war expliquer nan lay demee euh, expliquer leen incident yi si mën a am ba ñu comprendre signé ni expliqué nañ ma d' accord naa moo tax ma signé. maanaam tey jii pour nit ñi mën a comprendre sénégalais boo xam ni exemple comme euh, c' est pas le cas mais bu Sénégal nangu woon def test sénégalais boo xam ni jël nañ ko rek pour mu def test day fekk yow la neex. waaw loolu moom démarche normale mooy loolu. Euh, ku ne nag ak sa motivation dégg naa France euh, médecin yi nga xam ne ñooy recevoir maladie ñoom ñoo jëkk nangu parce que ñoom dañu jàpp ni.

ñoom it jël engagement ni lépp lu si am comme incident wala lu luy lore ñoom dinañ taxaw taxawu la ba faj la. d'accord mais ñun est-ce que proposé gum nañ ñu pour pour def test yi. Ah, loolu moom mm, wóoruma wax dëgg yàlla. parce que euh, uh-huh. waaw newuma ci fa ñuy jëlee décision yi donc xaw ma xaw ma ndax propose nañ ñu wala déet. d'accord traitement chloroquine bi tamit bi ñu ko commencé wax euh, version yi bëri na mais dafa mel ni moom am na efficacité mën nañ téye ci loolu waaw chloroquine bi aussi juróon na ay wax mais dafa fekk ni euh, ñu bari xamuñu ko waaye garab surtout ci doomu jàngoro euh, doomu jàngoro yi dañu wuute am na virus comme coronavirus am na parasite comme ñuy joxe sibiru am na ay bactéries lenn ci liy faj bactérie mën na faj parasite lenn luy faj parasite comme comme chloroquine fii gis nañ ni am na ay activité am na jeexital ci coronavirus te loolu bañ ko nemmee ko du léegi parce que coronavirus comme ni ma koy waxee du fin 2019 lañ ko xam coronavirus famille la bu yàgg bu am ay doom am na si benn doom bu <laughs> ay doom yu ñu euh, nemmeeku woon ci 2003 ñoo joxe woon maladie bu ñu tuddee stras syndrome respiratoire aigu sévère fële ci Asie ray fa ñu bare ñi doon gëstu nag doon nañu seet yan lan lan la moo ko mën faj ba ñu gisoon ni chloroquine ak euh, dérivé yi am nañu au laboratoire ay jeexital ci coronavirus bon après ñu tegoon ko ci suuf parce que euh, SRAS boobu dafa dafa wàññi woon léegi bi feebar bi tàmbalee euh, am ñu jógaat ni ñun fàttaliku nañu telle étude wane woon na ni chloroquine am na action ci coronavirus donc nañ ko xool comme dañ ñëpp dañ taxaw ni amul lu koy faj donc loolu moo jur début utilisation chloroquine ci ci ci feebar bi te ñi ko def gis nañ ni am na jeexital ci bu baax ci ci ci ñu ngi koy faj ñuy wér wala duñu def forme yu grave euh, mais wax ji ca France la surtout euh, dañ ni garab boo koy soog a jëfandikoo war nga ko jaarale ci benn yoon boo xam da ngay def ay essai jël ñoo xam ni da leen koy jox ak ñoo xam ne doo leen ko jox nga xool ndax am na jeexital ci ñoom est-ce que amul ay effets secondaires yu leen di sonal wala yu demee noonu mais man li ma ci wax rek mooy chloroquine du garab bu bees garab bu ñu xam la xam nañ ndax am na effet secondaire wala amu ko ak yan effet secondaire la am donc bu fekkee ne nit ñaa ngi faatu ñuy gis ay centaine de personnes par bés ñuy gaañu ñu toog di xaar ay essais yoo xam ne xamuñu kañ lay pare. donc man d'accord nag ñi nga xam ni dañu ñoom dañ koy jëfandikoo ba bay essais yi pare bu essais yi pare mais daal am na ñu koy jëfandikoo ca France ci États-Unis euh, koy jëfandikoo te ñu koy jëfandikoo am nañ ci résultat yu leen neex